mais actuellement fi ma fi may wax ak yow nii nii nii dañoo dañoo génne docteur dañoo génne mbooleem ñu nekkoon foofu avocat yeeg tout ñëpp ne wàcc leen tuuti may ñu euh, aujourd'hui kenn mënatu koo gis tëj buntu yi. kon loolu lu garaaw la. lu garaw loolu nag ndaw Sénégal yi laay oo d'abord leen ñun diine lislaam lañ gëm te li diine lislaam jiñ gëmul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam danaan xare lislaam ba bëñam dammu terewut muy xare ba tey ñu am indépendance. ku ñuy ku ñuy yee ci diine wala ci xam-xam nag naan ñu teg fuñ teg euh, manifestation waratu am ma ne la da ngaa jàngul Seydina Omar ba mu ñëwee fekk julli di di julli di làqatu daf ne ndax luñ nekk mooy dëgg ñu ne waaw mu ne ñee luñ nekk du dëgg ñu ne déedéet mu ne kon nañ leen génn ñu manifester wu wër kaaba gi ñu génn manifester wu teewante di wër kaaba gi ñu leen sànni ay xeer mooy lu ñu police yi def tey ñi yi dañu dóor di leen dóor ay xeer ak i mool ak i yet ñu seen deret di tuuru ñuy war kaaba gi safe yonent yàlla Muhammad safe boobu nag mooy lan tey mooy ñun askan bi ñoo war a taxaw taxawaayu saxaaba foofu tey mooy dañoo war a sauver Ousmane Sonko d'abord ñi ngi wax nag état Sénégal ne bakkanu Ousmane Sonko lu ci okk wala lu ci xuseeku ñoom lañ ko teg parce que ñoom la yàlla dénk bopp nguur gi ñu war a ji ñu war a yemale ñëpp mënoo oo ñaari sénégalais kenn ki defoo ko dara nga corté ko ba mu àgg fa mu jëm kenn ki na fii laay aw nga ne ko doo aw foofu jël ko d'abord yóbbu ko fi may tëjee mooy Euh, ñu ngi jéggalu suñ kilifa diine yi parce que am na wax yu jug yoo xam ne du ñun responsabilité euh, Pastef du responsabilité Pastef it ñoo koy wax ndax Pastef seen responsabilité ku ko dégg xam na ne yarteef rek la te xol te xol bu jugee borom du ànd teg sagoom mhm. ñu ngi leen di jéggalu ndax ñoom amuñ lu dul ñoom mhm. yaakaaruñ ñu dul ñoom bëgguñ ñu dul ñoom mhm. waaye it ñu ngi leen di fàttalil ne leen fas alu ahla zikr alxuraan moo ne day leen fàttalil doonte fàttewuñ ñoom na leen Ousmane mu ngi ci camp cas yooyu mu danger danger mu tëdd fii tey nag kenn ku ci nekk boo ko seet si woon di kilifa dina sa ronkoñ dana tuuru da nga xam ne lim ni xeexal yow la koy xeexal am na njaboot am am ay doom am ñum jiite am ñum am ñu ko yaakaar ci politique kon ñi ngi koy ñaanal fi mu tëdd yàlla na fi jug jàmm ak salaam waaye ñu ngi insisté ci ndaw Sénégal yi na leen nañ jug ñu xeexal seen réew xeexal sa réew tegtalewul tegtalewul comme ni ko gars yi jàppe ay ay rayanteeg ay nangam mais am nga droit xeexal sa façon bu set boo xam ne ni nga ko bëggee la waaye liñ bëgg a wax maanaam nit ñi xam nañ lañu ñu bëgg a wax mooy lan ndaw ñi nañ jug ñu xeexal seen réew ñu bëgg seen réew ñu soutenir Ousmane Sonko parce que cas yi mu nekk nii maa ngi wax ci yàlla ne cas yu difficulté la nekk parce que ku mënul wax nit mënu koo gis muy nelaw aussi tamit loolu cas yu difficulté la kon ne nit ñi xam ne Ousmane aujourd'hui bu jugee nii jug bu ñu bett lay doon waaye bu jugee it sàkku ñu fayoo ko Sénégal dañoo sàkku immédiatement demande nañ ko jox passeport mu génn réew mi xool fu kon fu dal xelam mu fajoo ji fa parce que am na ay médecins ci biti yoo xam ne ñoo ko daan traité di ko xool ñooñu aussi tamit mënuñoo ñëw fii parce que fii am na ay médecins traitoire bu nekk dafa am dafa am lu muy làmboo mhm. nañ ko bàyyi mu génn faju nañ bàyyee ñeneen ñi voilà fi may tëjee mooy ñiñ jàpp ci manifestant yi nga xam ne maanaam dañoo jógoon di xeexal seen réew nañ leen bàyyi immédiatement nu mu gën a gaawee mhm. nañ leen bàyyi immédiatement mhm. parce que lu tax nañ leen am na koo xam ne heure boo ko téye yëngal nga xolu ñu mer jug nañ nañ leen bàyyi immédiatement nag kilifa diine yi nañ wax ci lii kilifa aada yi nañ wax ci lii suñ mbokk chrétien yi am nañ cër ci réew mi nañ wax ci lii parce que nag wax wax mi ngi bëgg a passé parce que Ousmane mi tëdd fii ah suñuy luñ suñ njortu bu bu néew bu àggee te la ñuy njortu yàlla xam ne ne billaahi wallaahi taalaa danañ gis danañ gis luñ mës a gis fii ci réew mi. ñu ngi leen àttu nag maa ngi tey ci suba ñi ngi doon dégg ñi ngi doon dégg wàllu. d'accord d'accord allez-y. maanaam lan la ci nar a doon yéen waa mouvement doomu daara ba xam a ngi waaj dem gis kilifa yi ñu ngi doon dégg ay médiation affaire ba xam loolu yéen jot nga jot ngeen. waaw xam nga yoruma porte de voix bi waaye danaa wax loo xam ne nii su ma ko waxee dana engagé maanaam ñu bëgg lu baax yëpp mooy ñun lu baax la ñuy wër avant lii dañoo joxe alerte alerte kilifa yeeg ñëpp alerte réew mi te xam nañ fi réew mi jëm te fii ak deux jours ci kanam buñ teeltu arrêté lii bàyyi seen dossier caaxaan yi ubbi ñun liggéey biñ ci war def nañ ko ñun bu wax jotee danañ wax askan bi bu wàcc ci terrain bi jotee danañ sumeeku wàcc ci terrain bi ñun tamit parce que ñun Sidi Lamine mooy suñu maam d'abord kii xaadimul rasul mooy maamam sëñ Touba dafa xeex jeexaat bañ dugal ko ci ci ñaar fanu Dakaarum ci ay pont lu nekk mais lu doon xeex mooy injustice Alaaji Malick ba dem ba muy dem euh, Ndar fu tubaab bi taxawal église mu taxawal fa jàkk lu mooy injustice Alaaji Abdoulaye Niass ba muy téye jaasi dem xare ma booba lu mu doon xeex du injustice maam limaamu ba mu ñëwee fii Dakar bu ko neexoon mu ne puus leen mu dëkk maa fi moom mais injustice boobu la doon bañ moo tax mu dem ba ci peggu géej gi mu ne géej gi na randu mu dëkk foofu te lu gën a sëriñ lu ko gën a ragal sedd amut mais ñooñu nag lu baax lañ def ci réew mi buñ ñëw buñ nangu benn état boo xam ne dañ koo xeexal ba mu jël réew mi mu ñëw bëgg a xeexaat benn citoyen boo xam ne nii maanaam deful lu dul jub deful lu dul dëggal xool lañ ko ci xaalis mënuñ koo jàpp ñu xool ko ci lu nekk mënuñ koo jàpp waaye nag olof njaay def nag boo xoolee fa la gën a jege ku ku seet seet jotu day xool fa la gën a jege mu jaaree fa yàqal la fii désolé doy na dossiers yi aussi tamit aujourd'hui doy na dossier Ousmane Sonko yi aujourd'hui bii fi ñu ci yemoon jeex na doy na parce que mënoo indi Adji Sarr yow noo indi Adji Sarr ubbeekoo enquête bu leer avant boobu di leer nga ubbiwaat beneen beneen beneen dossier où est le problème lu ñu bëgg def Sénégalais yi Macky Sall ñun ndaw ñii 2012 ñoo doon xeex na Abdoulaye Wade du nekk troisième mandat du xam nga problème bi la nañ ko wax te dee débat wax leen li ñu a wax. mooy troisième candidature Macky Sall moom la ñu war a débat. mais pas ay Ousmane Sonko Mame Mbaye Ndiaye yaa wax waxuma def nañ ci moom livre pourquoi ki def ci moom livre demul plainte ko. Ousmane Sonko ñaata plainte la yóbbu tribunal kenn faalewu plainte am yooyu. koo xam ne heure bu plainte duñ ko faale heure bu ñu ko plainte ñu oolu ko mais nañ ko seetaat yëf yi. kumba am ndey la ak kumba amul ndey. Ah il faut mu leer. parce que ñun leer nañ ñun ñu taxaw fii di wax nii nii bañ génne mën nañoo jàpp yóbbuñu mais mais sama fou lijjantiwuñ loolu. nañu jàpp yóbbuñu. sëñ bi yaa ngi wax léegi lu solo muy que ku jaar ci yow. ba sonn jotu la fay jaar fi nga gëna jégué bokku ci rek euh, comme niñu koy waxé taxaw sétlu Ousmane Sonko du mom rek lañu daldi di euh, def lu ni mel ba mu ñëw fi nga xamné mom moy suma assistance euh, bokku ci maître Clédor li ak ki nga xamante ni moom mooy Guy Mari Sañ Guy Mari Guy Mari mom sax actuellement ni kawam dafa xawa a critique tuuti waaye li mu nekk rek mom motax euh maître Clédor moom ça va alhamdulilah mm. parce que mom bi gaz bi dugg bi mi bi mi yéeg ci auto bi tombé naag Ousmane dugg dugg te boy xol yere Ousmane au côté manam lu ci ëpp ci ci liñ tour ci fofu ci mom la touro te bi mi dugg yit nekkul biñ ko yobbu duggal ci auto bi nekkul 100% boy xol ci image dañ ko jàpp sax duggal ko nekkul 100% ci ben dossier bo xam manam du dossier ya jël jëlo xam nga ne ya jël wala xam nga ne jëlo lu jar lu jar détail yu bari ni ñaata politique seen ñofi taxaw ne Ousmane Sonko doomu njaaloo la Ousmane Sonko baxul Ousmane Sonko robel la Ousmane Sonko nangam est-ce que ñooñu amna kenn ku ci Ousmane Sonko ma taxo taxaw wala mu yóbbu la parce que xamna né politique la il faut ñu jël lu baax tek ko sa kaw il faut ñu jël lu bon tek ko sa kaw fofu la réew mi tollu réew mi nak fi toll nak moy li ñu wax rek ñun rek mom la wax ka Mame Mbaye ak ka Ousmane Adji Sarr ak ka keneen ak keneen yi am na yeneen bu bii sulee ko danañ suliwaat yeneen fii ba 2024 pare wuñ pour jàmmal ko moom mais tant que pare wuñ pour jàmmal ko ñun pare nañ pour jàmmal Ousmane Sonko ñun jeunesse di Sénégal ñun kilifay Sénégal yi su pare pour pour téye nag mbooleem leader yi nekk biir Yewwi Askan bi mbooleem mbooleem kilifa yu nekk biir Pastef na ci tegaale ñu sant Mbacke ñu ànd ci tegaale sant Niass ak Ousmane Sonko na ci tegaale ñu sant Si ñu ànd ak Ousmane Sonko na ci tegaale kër Limaamu Laay ñu ànd ak Ousmane Sonko na ci tegaale Sonko na ci tegaale ñu ànd mboolem kër kilifa diine yi ànd ak Ousmane Sonko ñun ñun ñun nous sommes prêts pare nañ ci lépp parce que xam nañ nañ kenn ku ci nekk di défendre sa réew def nañ seen i luxe pour pare pour yóbbu la parce que booy yi nekk ci réseaux sociaux di xeexal seen réew kenn ku ci nekk ñu lay jàpp par benn ben di la yóbbu loolu bi tey Cheikh Niass am na yeneen ñeent Cheikh Niass am yu nekk ci gannaawam sëñ xaadim na junne yi sëñ xaadim yu nekk ci gannaawam imam Dramé noonu keneen noonu keneen noonu noonu yaa ngi dégg Cheikh Ahmad Bamba li ñuy xeex su ma toogoon sama kër sama lépp a ngi dox kii noonu kii noonu ne ñu ngi leen di bundu xatal di leen sonal ñoo war a wàcc ci réew des ma koy lancer appel foofu laay tëjee mooy est-ce que loolu wóor na gis nañu Dame Mbodj démb mu génn ci télé euh, bërki démb di moins après ñu attaqué ko est-ce que yéen itam yéen a ngi sóoraale seen sécurité waaw xam nga Ousmane bu bu porté combat. Mhm. ñu attaqué ko ba gagé ko. ba mhm. xamul mi ngi ci diggante dund ak dee. Mhm. ñun buñ buñ buñ buñ buñ nañu xóob rek ñu daw. kon Ousmane bu paree maam bu bu ko yàlla doon njëkk tey tey tey mën na ko démissionnel. bul politikati. beneen biit mooy leader yi nga xam ne ànd nañu ak Ousmane. foofu laay tëjee leader yi nga xam ne ànd nañu ak Ousmane. Ousmane jëleen lum jiwul kenn. tax ñoom ñu nekk tax ñoom ñu nekk député. tax ñoom ñu nekk euh, maire. ñooñu nañ fay naar bi xoromam. nañ fay naar bi xoromam désolé dañoo sonn ah dañoo sonn bu dee kilifteef ñoo leen gën nekk kilifa fuuf mhm. ñoo leen gën a nekk kilifa ci côté yëpp kon nag nit bu sumee yëre kilifaam teg ko porté yëre combat da ngay ñëw nga xeexle ko ko nañ ñëw fii ci ñun nañ wàcc ci terrain bi amul député amul amul amul amul amul euh, maire amul dara ku Ousmane masa taxaw ci sa dëkk mhm. campagne ngir Sénégal mhm. campagne ngir boppam mhm. ñëwal nga soutenir Ousmane ndaw lu gëm projet Ousmane bi wàccal nga ñëw soutenir Ousmane Sonko ndax sonn na jërëjëf merci beaucoup kon nag